danga ko gëstu ba xam ko sëj bi duñ dem nag ba ñibbi te waxuñu ci wàllu làmb ndax ku ne xam na ne amba am na combat royal boo xam ne mi ngi si suñu kanam fan yi dox ci diggante Siteu ak ki nga xamante ne mooy roi des arènes Modou Lo noo gisee ñaari xale yi làmb jooju de mhm. làmb ju nar a tàng jër lay doon beneen bi ci topp mooy mhm. wax naa fi ci ñaari émission ne leen mhm. Modou ma ngeen xamoon mooy takk ay xanjar xanjar ci yaram bi dëgg la Modou Lo mii moo ko ëpp mystique. mi hmm? fi nekk moom tey mi. bu takkul dara bi uh-huh. jëfandikoo di fi gone. Hmm. toujours damay wax ne am na mbir yu taxaw ci moom di taxaw it jëy sun hmm. toujours boo xoolee mbiram. Uh-huh. moom nag bu dëggan image bi image bi bu ko seetaanoon mën naa yëkkati loxoom ne jëy sun yi burut ay kaamil de jëy sun leneen. xam nga jëy sun mooy lan. jëy sun mooy lan mooy ñetti téeméer mi ngi fukk ak ñett. wala muy jàngalu jëy sunu leneen leneen mm-hmm. wala walay tur yàlla rek mm-hmm. waaye lii ma la wax nii mm-hmm. su ko déggee dina xam ne li may wax dëgg la man du ma bukk ma sëriñ si di wax ci ay waxi na xasaxan amu koo ko jot amu koo ko jot Siteu fi mu taxaw baax na waaye na yokk gàllaajam moom Siteu lu mën a def ci adduna na yokk kaaraangeem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 waxtaan ak moom lépp loo xamante ne liggéeyam la dinañ ci waxtaan ak moom dama koy nuyu moom Serigne Cheikhouna Ndiaye sampoob sëñ soxna jaara jox ko mu nuyoo après ñu li nga xamante ni mooy waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la waaw kay soxna yaa maa ngi lay delloo nuyu bu baax. Mhm. di wax aouzu billahi min aseytaan rajim mhm. wa inni unsuha bika wa surriyataha min aseytaan rajim rabbi aouzu wa aouzu bika rabbi an yahduruni mhm. nawarta ya nuuru kulli saafiyan abadan kafaytani sullamal asyaah yàllaahu mbokki réew mi maa ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbooleem waa réew mi ñëpp di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te bàyyi ko fi mook mm-hmm. njabootu tarixatul muridiyya ñëpp mm-hmm. di ñaanal mbooleem tarix ci biir réew mi ñëpp kenn ku ci nekk ñu ngi lay joral am nuyoo di la ñaanal bu baax yal na yàlla yeggale saw yoon. allahumma amiin ci barke Muhammad. Mm-hmm. jërëjëf. ndeysaan ay ca am na solo macha allah noonu la nuyoo moom Serigne Cheikhouna Ndiaye sampub Soxna Jaara sëñ bi euh, lu waral tur bi Serigne Cheikhouna Ndiaye sampub Serigne Jaara lu waral soxna maam Jaara Yatulaahi. mooy wajuru Cheikh Ahmadul Khadim. Mm-hmm. kooku nag day mag moo xam ne daanaka ku ko tudd. dëgg xel dem ci cosaan. incha allah beneen bi ci topp mooy ku ko tudd. Mm-hmm. xel dem ci ab liggéey bu nangu. dëgg la ku ko tudd it mhm. xel dem ci lislaam muy soxna soo xam ne nii ku doya war la ci lislaam mhm. mu doonoon koo xam ne jëfam ci lislaam ñëpp ko nangu nangu bu liggéeyam muy wajuru Seexul Xaddim yàlla nag dogal doomu aadama boo gis ci àdduna day am féete mhm. soxna si nag yàlla dañu ko bëgguloo ci sunu ndaw ba sunu ba nii ñu toll li ñu am ci njaboot ñu tuddee ko ko di ko xeeñtu léppam di suñu lépp. Mm-hmm. loolu nag moo waral ñoo dem ba dàkkantal woowu ñëpp di ñu ko dàkkantale. dëgg la. loolu moo indi sant samp soxna jaara bu so mm-hmm. mm-hmm. ayca macha allah am na solo moom sëñ Seexuna Njaay samp soxna jaar sëñ bi euh, bu ñu jógee ci la ñuy ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllum seet tey boo ñu doon wax tey seet lan nga ñuy waaw seet nag dafa bari ay ponk. ponk yu bari yu bokkul. ndax euh, damay dégg léeg-léegaa ñu bari dañuy jaawale listixaar ak seet. listixaar damay wax ne képp ku mënta firi gént mhm. buñ la ne mën ngaa listixaar mënoo ko beneen bi ci topp mooy wàllum seet mhm. euh, dañ koy seet ci anam yu bari mhm. ñenn ñi dañ koy def ci wàllu ndox ñenn ñi di ko def ci kurus am nañ ñu koy def ci yeneen anam am ñu koy def sax ci pettaaw man nag ci ramlu laa koy def ramlu damay wax ne maa ci sut nit du wax ci mbir ne maa ci sut waaye nanguwuma man ku ma ci sut ndax ramlu bi ma yor nii mën ngaa war sëriñ sépp mënoo ko cee gis ramlu nag dafa am cosaan ci aw rab mhm. léeg ma dégg sax sëriñ su ci euh, def ak leeral mhm. muy rab bu ñuy wax wel ci la bàyyee ko ramlu bi ma ci yor mhm. euh, ci yontu yàlla Idrissa la bàyyee ci sabab sabab sababu su ramlu boobu ci moom la bàyyeekoo ko nit ku mën a doon ci adduna su ma la seetalee ramlul la jafe-jafe boo mën a am ramlu bi daf lay woon solution wax la sarax yi nga génne ko saraxe ko mhm. am solution ci sa jëmm dëgg la seet googu dañ koy seet mhm. listixaar nag buñ koy def nit guddi lañ koy def ndax listixaar damay dégg leen nit ñi di ko def lu bëccëg jékki-jékki woo kañ koy def loo ne ko ndax def nga ko bu dee ko ragalul yàlla danaa ko def naa ko mhm. waaye ku ngeen déggate listixaar loo ko mun la def naa ko ci bëccëg gi wérut listixaar de su ko def bëccëg beneen bi ci topp mooy ramlu du même heure yëpp nga koy def daa am yu muy bañ bu jant bi génnee léeg-léeg boo ramloo mhm. li nga bëgg a gis mënoo koo gis seet mooy portu ñaan mhm. boo ko munut loo wax ci ñaan wérut waaw ayca listixaar dafa am ñu client yoo xamante ne tey bu ñëwee fii ne Serigne Cheikhouna Ndiaye laa soxla ñu toog yow yaa leen di xoole pour listixaar de wala ñoom ñaanal ñoom wala ñoom ñoonoon nga listixaaral leen euh, ku ñëw di ma listixaar loo mhm. seet ku ma koy def loo su ma la jëlee ci liste bi nga xam ne ci lay jëlee ñi seetal dafa am waxtu yu ma koy dugal. d'accord waxtu yooyu nag. Mhm. damay jël ñi jiitu. toftal ci ñu topp bu ma demee ba heure bi jeex. Mhm. ma renvoyé waat leen ba suba. Mhm. même ñi may seetal kenn du ci génn heure. bu fekkee da ngaa ginnaaw biir ñu war laa seetal. heure yooyu rek lañ la mën a seetal. waaye duñ jël heure bu ñu soob rek ñu koy seetal doomu aadama déedéet. loolu duñ ko def. ndax seet fa nekk ab tegtal ci ñaan. bu fekkee yàlla dafa dogal ni nga xool ba gis li ngay seet. boo ñaanee rek da ngay am solution. dëgg la waaye bu fekkee da bëgga jël seet gi nii foyee nii rek. Mhm. bëgga ñaanal borom mënoo am solution. Mhm. ndax nit dafa am ci xeeti matière yu ko yàlla bind. Euh, ndax in faut nga jàng xam-xamu ilmu nu joom mhm. moom la ñuy wax xam-xamu biddiw. mën a xam nit ki. ci ban kaw kap. ci la bisam di taxaw. mën a xam buru joom mën a xam ay nakkiiram. mën a xam itam euh, mbooleem ay xuddaamam. lii ma la wax nii boo ko munta xamee ci nit. mënoo koo ñaanal wax dëgg yàlla. dëgg la xam-xam la xam-xam dañ koy jàng. dëgg la surtout. rawatina xam-xamu seet. Mhm. force mooy jiitu ci sëriñ. dëgg la ndax nit ki consultation la mhm. ni ko médecin yi di defee. Mhm. maanaam consulter malade bi. mën a xam yan jafe-jafe moo nekk ci moom doo koo ñaanal. waaye bu fekkee da nga bëgg a tëb tëb rek bëgg a faj. boo demee mënoo jàll. waaw comme client bi ñëw heure bu ñëwee rek mën nañu ko seetal. déedéet bu ñëwee comme li ma wax. heure yi ñuy seet. ci la ñuy bind turam bu fekkee liste boobu dafa fees. Mhm. dañ koy renvoyer ba suba. d'accord mu jëlaat ci heure yooyu. Mhm. mais nekkul ne nii même heure la ñuy seet. Mhm. parce que seet dafa am heure yu muy dox. dëgg la fi mu toll nii nit. bu fekkee da ngaa jël biddewoom biddewoom dugal ko ci euh, matières yi nga xam ne mooy bis yi taxawal leen. saa soo ci ñëwee rek nit ki day am bis bu mu judd. xam nga juróom-ñaari bis yi mooy taxaw ci ci semaine bi. dëgg la adduna nag kenn génnut semaine boobu. ku juddu lundi. Mhm. mardi ngay judd. ba juddu mardi. Mhm. juddu mercredi. waaye mënoo wax ba génn bis yi. Mhm. koo ci taxawal xool ay bisam. da xam biddiw yi yan heure lay génn. xool maanaam euh, sarax yi. yi dugg ci euh, tapxu bi mu soo xoolee sarax yi. bu fekkee awaahi yu la awaahi yu. naar yu trois bi awaahi yu maax yu. ku nekk da ngay am sarax. rawaxan bu ci nekk dafa am sarax. bu dee sarax bii la nga xool ko nga xool ko ci bis bi nga xam ne moom la borom judd mhm. nga xool heure yi biddiw yi taxaw mhm. nga jël saraxe saraxe ko ci saraxe ko ci heure boobu mhm. waaye boo jëlee sarax nii xëy rek heure bu la soob nga génn saraxe ko mun laa portel dara noonu la ñuy noonu la ñuy noonu la ñuy noonu fëgg porte ñaan uh-huh. mais sarax dañ la koy wax nga def ko wala heure bu xëy rek mën nga ut loo saraxe loo déedéet doomu aadama boo gis dafa am lu mu a saraxe am lu mu di saraxe ndax yow mi nekk naar yu nar yi moom la ñuy wax euh, rawaxaanu safara trois bi yu mooy suuf mhm. awaax yu mooy ngelaw mhm. maax yu mooy ndox mhm. ñeent yi benn bu ci nekk dafa am ay sarax yu ci dëkk boo jëlee ci bële andi ci bii yëf juunoo waaye boo xoolee benn bu ci nekk bi mu bi mu dëkk bi nga moom ñu xool ko lu jafee-jafee xam la boo doon seetloo téeméeri sëriñ ak juróom fukk mën nañ laa toxale ci burju bi andi la ci bii bi nga bokkul noonu boo ci dëkkee di ci saraxe adduna ak li ci biir mën nga koo saraxe du la jëriñ dara. beneen bi ci topp mooy nañ moytandiku. Mm-hmm. ku ñëw nga seeral ko rayloo ko am na ñoo xam ne seeni rab bëggul ray dëgg la dëgg la am na ñoo xam ne boo leen rayalee luñ amoon day gàllankoor mm-hmm. am na ñoo xam ne maanaam rab mm-hmm. yàlla daf leen ci nattoo rab yu soxor dëgg la rab nag euh, bu fekkee yàlla daf la ko nattoo nga jël maanaam xeeti sarax yoo xam ne day doon tuur deret boo ko defee gàllankoor gi day yokk waaye da wàññeeku waaw ah xam ne kenn waru leen a tuural kenn waru leen a rayal déedéet d'accord am na ñoo xam ne seeni mbir da koy bañ. Mhm. bari na ñoo xam ne seen liggéey dafa demoon ba yéeg. Mhm. wàccaat ba a zéro. Mhm. jàpp nañ ne nag dañ leen ween liggéey. liggéey damay wax toujours ne. doonut mbir mu woyof bakku ku ñu def la ko. yàlla yàlla euh, jërul doom cërub doomu aadama di ko woyofal genn woyof gi. dëgg la ba liggéey nit rek jàpp ko mu doon loolu rek am na ñu bëri ñoo xam ne nii. ñi ngi xëy ci liggéey nit. ngir seen njariñul bopp. te biñ ko tàmbalee def ak léegi ay mm. ay ati ati at la te mënuñ ci am benn benn résultat. kon liggéey nit. Mm-hmm. ku mën a moo ko man mën a xam matière nit ki ni muy taxawee. Mm-hmm. nga ñaan ci. Mm-hmm. génne sarax yi. te it même boo ko doon liggéey. dafa am booy liggéey. noonu la liggéey nit waaye liggéey yombul ba ku jóg ñu ne dañ laa liggéey beneen bi ci topp mooy. loolu rek yu ci baree bare moo leen tënk ba jaxas seen mbir. ñu naan dañu leen a liggéey mais kenn liggéeyu leen. beneen bi ci topp mooy sarax bi nga xam ne mooy jógee ci ramlu bi. Mhm. sarax yu ko gën a wér yàlla sàkku ko. mën naa doon nag lu nekk. daf lay tegteel nit ñi nga koy jox. Mhm. kii day xees kii day kii nii lay mel kii mhm. nii lay mel. nga sàkkee ko ni ñu la ko waxee ci ramdu bi mhm. yëkkati ko joxe ko comme ni nga ko war a joxee mhm. soo koy def di am solution ndeysaan ñaan moom dama ci am solution bu wér dëgg la lu ma ci mënul nag mënuma ko lay dëgg la waaye ku ma ci xool ba ne am naa ci am naa ci yow solution mhm. wallahi alazim boo ñëwee bu ma la ñaanalee nga gis lu wér ndeysaan ay ah. ca macha allah ñaan dama cee am solution kooku mooy Serigne Cheikhouna Ndiaye euh, sampub soxna jaara sëñ bi buñ jógee ci seet dañu ñëw ci li nga xamante ne mooy garabu néew kàttan bi waaw garabu néew kàttan dama ko daan liggéey di ko def ci biteel waaye. Mhm. xam nga biteel moom. d'accord def ci ay ay ay ay taf. dëgg la taaral mbir la rek. dëgg la ndax léeg-léeg nga gis biteel rafet lool tax la ca nekk du am njariñ. Mhm. lii dañ koy liggéey ndax liggéey bi jot gi moo bëree tut mhm. ci wut ay dajale biteel ak. di wut ay taf di ci def numéro yi ñëpp am nañ ko. la ndax boo xoo boo xoolee boo seetaanee fii da ngay gis numéro yi. dëgg la. garab gii. Mhm. ku judduwaalewul tële boo ko judduwaalee nag bul ñëw. dëgg la <laughs> bu fekkee daf laa dab. Mhm. garab gi daf la dama la koy defal traitement mhm. cinq takk yi ngay jël nga jëfandikoo ko. boo ko defee boo amul résultat bu leer. ñëwul ma jox la li nga ma joxoon ci xaalis. macha allah garab gu ko gën a wér. nit liggéeyu ko fii ci biir Sénégal maa koy liggéey. dafa am ay xeet garab yu ñu koy liggéeyee. dëgg la beneen bi ci topp mooy dafa am ay turu yàlla yu koy booleel di ko liggéey. amul benn jafe-jafe soo ko soo ko soo ko nag euh, jëfandikoo. mooy mujj ci sa biir doo ci tegaat leneen. Mhm. mais soo ko jëlee maanaam lépp lu nekkoon ci sa yaram mhm. ci wàllu deret da koy raxas. Mhm. Ah, beneen bi toog garab la goo xam ne ni maam kun war na ko jëfandikoo. waaye nag dañuy wax ne maanaam ab célibataire du ko laal. d'accord célibataire ko laal jëfandikoo waaw. ok. ay ca garab gi boo ko jëlee koy sol ci ay biteel def ko ay biteel di ko naan. déedéet ak ku dugg ndaw rek nga ciy jël nga tibb ci. d'accord maq nga jël ndox nga naan mu Mhm. nan nga koy def par jour. ndeysaan. Mm. ay ca garabu néew kàttan baa ngi noonu ñëw leen seet si ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikhouna Ndiaye sampub soxna jaara garab gi moom efficace na macha allah te gaaw na ah, bu ngeen ñëwee ci moom rek numéro téléphone bi dañu si suuf de écran bi ku ko woo rek boo koy incha allah sa aajo dina faju sëñ bi buñ jigee ci li nga xamante ne mooy garabu néew kàttan dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy hémorroïde. hémorroïde waaw. Mhm. hémorroïde nag jëmmi néew kàttan kooku nga wax sax. Mhm. ñaari hémorroïde da koy indi. dëgg la. émorite ndeysaan macha mhm. day indi ak télé siti mhm. mhm. day indi télé dëgg la rab day indi télé waaye bu mu ci mën a doon nag dañ koy saytu ndax ñaan lépp loo gis ma di ko fajal nit wala ma ci ñaan wala ma ci ñaan dama koy xool man loolu la ma yàlla natoo ndeysaan fi mu toll nii eh, li gën a woyof ci ñaan boo ma ko doon def lool dama koy seet xale buy doogu judd sax boo ko fennoon dama koy seet loolu mooy mooy mooy mooy lii mën a tax li ngay def doo ci jaawale ñaan. Mhm. amul amul jaawale. dëgg la amul léer amul yooyu. Mhm. doomu aadama dafa foor mhm. nit luy jëm ci moom lu nekk da am foo ko war a teg. Eh, hémorroïde dañ ci liggéey garab yu wér yoo xam ne boo ñëwee traitement bi mënta weesu cinq jours. macha allah bu dee bu génn wala bu nëbbu day deñ. hémorroïde moom boo ñëwee amut semaine amul ñetti semaine. dëgg la boo ñëwee juróomi fan ci lañ koy dindi mu jeex. Mhm. waaw. Mhm. ayca am na solo sëñ bi ku ne hémorroïde ne tension da gis nga mhm. tension tamit sonal nañ ñëpp. sénégalais fukk yoo jël euh, neuf yi yëpp dañoo am tension. tey bañ la wax ci tension. garabu garabu tension. yàlla dafa dogal ñu yor ci liggéey boo xam ne ni maanaam ñi ngi koy liggéey di ko yóbbu fu nekk ci àdduna. nga xam ne nit ñi miin nañ ko. tension nag. macha allah ñi uh-huh. ci am solution moom bëriwuñ. dëgg yaa ngi dégg. xot mhm. ba sax dafa mel ni damaa xaw a réer de. ndeysaan muy nii. Mhm. ok. Mhm. anamu. xoolal léegi garab gi nga gis nii. billahi wallahi wa taala bàyyi naa sax def émission di génn ndax nit moom loo mënta wax bañ xooleel ko gëmee la ko. Eh, billahi dëgg la. moo doon ba doon de waat duñ la gëm. dëgg li ngay gëm ngay gëm li nga mënta gëm mënoo ko gëm. dëgg la man àdduna nekk mu fi di wër ko gëm. dama bëgg di jëflanteeg nit mu am lu wér ci li ma ko wax. dëgg la alxaqu min rabbikum mhm. Mhm. gis nga dëgg. Mhm. kenn mënu koo toxal li ma yor day dëgg. jurul ma ci géñ. ak a ñaaj dem. dëgg la garab gi. tension nu mën a mel ci àdduna da koy régler. waaye moom it soo ko jëlee guddi. amut genn lekk goo ci tegaat da koy bañ. ok moom moo ko mën a régler ba nga nekk ci jàmm yow. macha allah li gën a jafe mooy. estoma estomac mhm, nga xam ne yow dangay dem ci médecin yi ñu koy dànk. boo ñëwee da koy raxas ba mu set ci yow. Mhm. boo ñëwee ñetti boîte yi nga ciy jël. Mhm. du ñeent du juróom. ñett nga ciy jël. feer boobu dañ ci yow. Euh, garabu tension baa ngi noonu mais tension bi boo ko jëlee sànq yaa ngi wax ne mooy mujj sa biir. mooy mujj boo ko jëlee. maanaam euh, dafa mel ni comme tàngal lañ ko liggéey. d'accord. Uh-huh. soo ko jëlee nii dafa am lem garab yu baree baree mm, baree bare uh-huh. bu yàlla dogalee ba nga jëfandikoo ko sa mm-hmm. loxo nga koy tibb gis nga lii mm-hmm. ku ne mën na koo jëfandikoo ko ku mën na koo jëfandikoo de soo ko laalee <laughs> ndeysaan jurul ngay jëlaat ak lekk di ko laal mm-hmm. moom inshallah boo lekkaatee suba la moom ndeysaan waaye doo xewluwaat waaye tension nu mën a mel ci àdduna. Mhm. garab gii moo ko mën a dindi. dëgg la da koy dindi ba mu denc yow. ndeysaan waaw. Mhm. Mhm. ayca am na solo macha allah po baa ngi noonu mi ngi ci sëriñ Seexuna Njaay sampub soxna jaara bu nga ñëwee ci moom nee naa la garabu tension baa ngi noonu ay ayca sëñ bi mu jógee ci tension day ñëw ci li nga xamante ne mooy noob ak noobu tubaab bi. waaw noobu tubaab. moom min nañ ci samay wax. dëgg la. nasaraan si ñooy xeet wi gën a jafe ci xeet wi. ñoom dañoo dëgër ay waxi naxa saxan na ngi jàpp leen. dëgg la de. nit lañ nag wala xad karam naa banni aadama wa amalnaahum fil barri wal bahri wa rasaqnahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiilan. ndeysaan. ku yoroogu ruu rek ñu lay wooy nit génnoo ci nit. dëgg la waaye nag yàlla mu bind wuutale. Mm-hmm. ni ñu wuutee ci der. Mm-hmm. ñi lañ wuutee ci lépp. ñooñu. Mm-hmm. mënoo bind nii ci kayit di leen jàpp. dëgg la de. déedéet. <laughs> ndeysaan am na ñoo xam dañoo bind ci kayit ba tële ci ñoom. secret bi ñu koy bindee. ci ci nickel laa koy bind nickel boolu nickel. boolu nickel yi. Ah. waaw mm. wala alluwee xànjar. alluwee xànjar. ci la ñuy jàpp tubaab. bañ ko liggéeyee raxas ko. Mm-hmm. niñ ko war a liggéey ci jumtuwaay yi ñu ko war a defee yëpp maanaam ñu defee ko noonu. Mm-hmm. ci kàttanu sunu borom da ngay am ndam ci ñoom. obaar loolu nag boo jëlee kayit yi mm-hmm, waaw fas leen ci yéeneen nopp. barki Serigne Saliou da nga yàq say kayit. nasaraan yooyu mënu koo jàpp. alluwaay xànjar ngay wut te ba pare info daa am ismu yoo xam da nga koy jël boole ko ak secret fa boo hital lesi kafara mhm. secret bu doy waar la bu naqaree xam sëriñ su bëri xamuñu ko boo leen ko laajee mënuñu ko xam mhm. moom ngay jël nga boole ko ismu yi mu war a àndal nga liggéeyee ko alluwaay weñ mhm. ku ci bëgg a noobu tubaab du ma garanté ak ñaan mais mën naa laa garantel nga jàpp ko macha noob du ci noob da noob dama ko jël ay millions dugal ko ci secret nopp nga xam loolu maanaam amut sëriñ soo xam ne nii sëriñ su bari loolu nopp jarul leen ko. dëgg la de dafa bokk ci liggéeyub lasaraar. Mm-hmm. bokk ci askan wi ni ñi itteewoo ko di ko def. waaye nag bala ma koy def it dama koy teg fenn. Mm-hmm. bu dee ci noobuk tubaab. Mm-hmm. dinaa la laaj ci yan anam nga ko bëgg a defee ndax ni noobuk tubaab moom moom laa gën a sawar ci. dëgg la noob yi ñuy def xale yi jigéen ñi. ndeysaan ndax noobuk tubaab damay wér ne yow mi koy def. da ngaa nekk ci diaspora bi. bëgg liggéey bëgg tekki indi sa réew. wala nga indi ko ci sa njaboot. boo ma ci dul fay dara sax wala wala nga doon ma ko leb. Mhm. am naa maanaam euh, jomi lebal la ko. ndax yéen a jën cee am. Mhm. waaye noob yii. Mhm. bokkul ak noob noob yi ñuy liggéeyal tubaab bi. ñaari matière la yoo xam ne bokkut bii mhm. ku yàlla dogal ma jaar ci ak yow ci fii ma fii ma tudd nii mhm. ci kàttanu yàlla da nga ci am lu wér ndeysaan incha allahu rabbi mhm. ayca macha allah noob gaa ngi noonu daw si leen seet si sëriñ Seexuna Njaay sampub soxna jaara bi nga ñëwee ci moom rek incha allah noob bu ngeen bëgg rek moo xam mu noob nekk noob bu nit ku ñuul ki wala noob bu tubaab gi bu ngeen daw see ñëw ci moom rek macha allah jàmbaare ci sëñ bi bu ñu jógee ci noob dañ ñëw ci li nga na nit ñëpp bëgg nañu dem mais seen kayit yi ñoo am ay problème wàllum kayit ñi ci ëpp di ko ñaandu mm-hmm. dañoo tëju ñi wax naa leen ne leen bàyyi leen songu ab ambassade di ñaanlu ci kayit ay kayit ci nii nii nii rek mm-hmm. gis nga nit tëju nag yi koy indi yëpp dinaa ko lim uh-huh. yi ci ëpp bokk ndax mënumaa lim yëpp ci émission bi nañ bàyyi nelaw ba dix heures songu ab ambassade di ñaan doo am biddanti moom ku ci dëkk dara doo ko am bilaay dëgg la bi ci topp mooy mm-hmm. rab dana téye nit ba lu mu dugg moomu tàmbali du am mujj bi ci topp mooy di mooy yàlla. Mhm. ba pare song ambassade di ñaan kayit. Mhm. dara doo ko am. dëgg la de. <laughs> nga. Mhm. yii ma lim nii. ku ko fi bàyyi beneen bi ci topp bu dee wàllu rab la. nga da si ñaan. biddanti Serigne Sall la daan wax képp ku koy def. doo dabete doo bokk ci góor yàlla ya. la day jafeel mbir yu bari yu waroon a yomb. dégg nga. ndeysaan suñu la xoolalee papier yi ndax réew moo mën a jëm. dañ koy jël dugal ko ci xilmu xadat boole ko sa tur ak dëkk ba nga jëm dëgg la am na siifur yoo xam ne bu ci wàccee force da ngay toogaat ba xaaraat ba ci kanam hmm. am na siifur yoo xam ne bu ci xasee wàcc hmm. boo tukkee da nga fa sonn doo indi dara tukki dañ koy xool dañ koy xool de <laughs> ab tukki du lu ñuy jékki-jékki rek def ko ci noonu ci noonu rek dëgg la bu ñu ko xoolee hmm. xool rawaani ndax kiit bu nekk dafa am ay rawaani boppam réew mu nekk ilmu adat nii rek boo ci duggee xool réew yi. Mhm. benn tolluwu ci ak moromam. nga xool adat réew mi. Mhm. jël sa boole kook fa nga jëm. ak it ba a ya nga fa a jëm wala bis ya nga fa bëgg a jëm. Mhm. nga nga jël ko adat ko. wàcce ko. boo xoolee a ngi noonu papier yaa ngi noonu sëñ bi bu ñu jógee ci papier wàllum kayit dañuy ñëw ci li xam mooy wàllum rab sànq wax nañ ci sax mais nañ ci waxaat parce que rab dafa bëri ci réew bi léegi. waaw rab dafa am ay ay mbir yu baree baree baree bare yàlla nag dafa dogal mhm. bi ci ëpp doole mhm. danañ koy tuddee rabu cosaan fi ne bari na góor ñoo xam ne yàlla dafa def mhm. dañuy faral di fooyee seen bopp loolu rab da koy waral te beneen bi ci topp mooy ñàkk gu baree baree bari ci doomu aadama yi sabab soosu maanaam mi ngi bàyyee koo foofu rabu cosaan nag damay wax lu bëri ne nitu cosaan koo xam ne yàlla dafa dogal màcceeru rab dëkk ci moom ci ay maamam. dëgg la ñoomi xam di ko tuur. Mm-hmm. maam yi jóge fi ñaf fa waroon a topp waroon koo lijjandi sàggane ko. Mm-hmm. léegi nag bu dee ay xàmb yu sampoon la. Mm-hmm. dañ koo sàggane nii ba gone yi foyee ko. rab yooyu force dañuy màbb dugg ci njaboot gi. la ilaha na jigéen ñu baree bari buñ leen dëjut nii. rab moo nekk ci ñoom. Hmm? ku wax ci ñoom bu subaa du dellusiwaat. allahu akbar loolu rab moo koy def. allahu rab dafa bari ay xeet. ñiy wax ñëpp naa mën lañ koo faj. Mhm. xaaj bi mënuñu koo faj. beneen bi ci topp mooy mhm. ku la ne mën naa ko génne ci yow ba mu jeexit waxut dëgg. rab da nga koy dànk xam yan façon sarax. Mhm. lay laaj. nga génne sarax yi. saraxe ko. ñaanal borom. beneen bi ci topp mooy ku am ay xàmb bul am complexe ci di fa dem. waaw nit ñi nañ fonk seen cëslaay yi. dëgg la de. gis nga rab. yàlla moo ko boole ak nit. nit mënta dem sans rab. ku la ne dama lay tàqaleeg rab boo ko ñemee ne ko waxoo lu wér. Mhm. Mhm. beneen bi ci topp mooy. Mhm. dafa am xeeti kayfiyaat yoo xam buñ ko liggéeyee. Eh, ci anam yan koy liggéeyee. boo ko sangoo bu la rab doom sonal day deñ dëgg la boo waxee nit ci wàllum sëy. bu waree doon sa borom kër ci dogalub yàlla. da koy doon. rab dama koy dindi. ndeysaan dama koy faj. ba mu déggu ak yow. d'accord dama koy faj nag ci ay anam yu baree bare ci xeet yi. Euh, liggéeyin ci ci ci ci ñun. ci mhm. xeeti kayfiyaat yi nga xam dañ koy jëfandikoo ci wàllu lasaraar. Mhm. yor nañ ci yu baree bari yoo xam ne rab rek moo ko tax a jóg. Mhm. kun ci jëflanteel. nga am ci lu wér a wér a wér. incha allah dañuy gis par des fois jànq bu toog lu yàggu amul jëkkër ñu ne rab a ko jàpp. ab dëjaay da koy waral itam. ok xam nga jigéen ñi dañuy faral di wor. nga jéggal ma tuuti. waaw ndax bu fekkee yàlla dafa dogal. nga am koo doon bëgg. di lekk alalam. lu mu am jox la ko. présenté la ay mbokkam yëpp. fu baax fu mu am yóbbu fa. dëgg la ngeen di waxante waxi gor. Mhm. nga dem ba ci biir nga war ko. di mhm. ànd ak keneen. bu dee ku mënta bàyyi di toppante. Mhm. il faut day jiim ci yow. loolu boo ko defee ñaari nit ñett nit. ku ne jiim ci yow. gàllaaj yooyu daf lay jàpp da ngay dëje. ñu bari loolu moo leen dëj. ok mais ki ñu bu ñëwee damay formante yaram bi. ci génn guddi. ndeysaan lu nekk ci moom dañ. dëgg la bu dee rab. ma ci ay quelques jours mu dañ. waaye jigéen yii koy teese wàllu rab. wala ñu dëj la. boo du dàq. dàq yi da ciy bokk. am na ñoo xam dañuy taam dëgg la de <laughs> ay ci ba tey damay des ci rab ndax damay dégg ñu ne même tuur ndoxu timis baaxul rab da lay topp. rab moom boo ñëwee ci dig euh, li ñuy wax njolloor. Ah, njolloor waaw mooy bëccëg. Ah, bu deux heures jotee jàpp trois heures. Ah, mag ñu bari dañuy wax gone yi naan leen bu leen di faral di génn heure boobu. Mm-hmm. timis mm-hmm. bu ñu ko noddee. Mm-hmm. surtout dañuy faral di ne. saytaane ñaane day làqut ci wanag yi. dëgg la waxtu wu ñuy ndoddu timis. dëgg la de. loolu. Mhm. nañ ciy def très attention. Mhm. beneen bi ci topp mooy. dëgg la eh, ñaari heures yi. Mhm. rab dafay bàyyeekoo ak xeet yu dul rab sax. yu dugg ci doomu aadama. rab ak jinne nag. ni ñi dañ ñeen di jaawale waaye nekkuñu benn. duñu benn déedéet. rab ak jinne ñu bari damay dégg ñu naan benn lañ waaye ñi koy wax dañoo xamul dara rek. ñaari ñaari cër yu bokkut la. waaye nag bu ci mën a doon ci anam yi nii ñaane yi ci des. Mhm. ne lañ ciy ñaane rek. Mhm. mu dañ ci yow. Mhm. incha allah rabbi. rab ak jinne luy seen différence ñoom ñaar. ak rab. ndax de maanaam wàllu rab. rab moom ay matière la yoo xam ne tey jii boo ko doon xool. li ñuy wax wallaahu ahlam yàlla rek moo ko xam. dëgg la mënoon na daa xees mënoon daa ñuul. dëgg la de. mënoon daa wert mënoon daa bula. jinne nag. boo ñëwee ci. alquran hmm. suñu borom dafay indi da ciy indi ay turam dëgg la wa maa xalaqtul jinna wal hmm. insa illaa liya'buduni hmm. moom do yàlla da koo sàkk sàkk nit ci lu leer ci lu nit xam ndeysaan nga xam ne yenn saa yi dégg ay sëriñ yu ñoom am nañ ay jinne xam nga loolu kon lu leer la dëgg la <laughs> waaye sëriñ benn bu nangoo amee rab moom amul ndeysaan benn sëriñ bu la am na ay rab doo ko fi dégg am naa ay jinne moom toujours nga dégg waaye am naa ay rab moom doog de parce rab moo doonul loo mën a laa mu ni ko wala nga xool ko gis ko jinne nag am nañu koy gis hmm. <laughs> uh-huh. beneen bi ci topp mooy wàllu rab wàllu rab waaw am na ñu bëree bëree bëri ñu ciy wax uh-huh. ci sëriñ si uh-huh. ñoom dañoo yor rab mënuñu mënuñu ko faj ñoom dañoo yor ay rab ah, dañoo yor ay rab ay ñoom ci seen bopp dañoo yor rab sëriñ si koy wax <laughs> ñu ci bëri ay rab lañu yor ndeysaan rab moo hmm. gën a naqaree faj ci àdduna dëgg la ndax daa bëri ak bañ bëri ay sew sew hmm. rawatina boromam njaboot. dëgg la boo yoree njaboot gu ndaw. ndeysaan amoo gàllaaj. Mhm. bul dugg ci rab. dëgg la rab dafa bari ay mbir. ndeysaan bari xeet. Mhm. bari ay matières rab. Mhm. moo tax bala nga ciy dugg na nga xool ban rab ngay dugg. ak ban rab ngay jàmmaar lool. dëgg la soo ci duggee te xamoo yan bunt nga ciy dugg. danga ciy ci loro boo ci mënta loro sax njaboot ñoo ciy loro. dëgg la luñ la ca joxe jëru ko. moo tax ku ciy woote. na nga am foo ko teg. ndeysaan ay ca am na solo ku ciy wootee na nga am foo ko teg tey ki ngeen jàkkaarlool euh, mooy seeku naa Ndiaye samp soxna jaara tey nee naa la borom xam-xam ngeen jàkkaarlool ku gëstu xam-xam ngeen jàkk waaye ku xam-xam leer ta sell yiw macha allah moom ngeen jàkkaarloo tey sëñ bi ñu jógee ci rab dañu ñëw ci nga xamante mooy ku bëgg a ku bëgg a falu. Mhm. yàlla dogalee ba nga ñëw agsi ci ñun. am nañ fi liggéey yoo xam ne buñ ko liggéeyee ci ay sangoo ay xeet yi nii rek. Mhm. maanaam jàpp ne falu nga dug falu. dëgg la am bayre dug falu. dëgg la ndax bayre. Mhm. bu dee ci bayre bu ñuy liggéeyee sunguf. Mhm. day ruus. Mhm. waaye nag wàllu samp. buñ la ko liggéeyalee. ci kàttanu yàlla buur bi subhaanahu wa la da samp te danañ la dégg te li nga bëgg mën nga ko am. macha waaye nag falu yit dafa bari ay xeet. yu koy liggéeyee. ku nu réew mi bari nañu fi ñu ñu fiy dudd ci wàllu politique. wala wàllu làmb. Mm-hmm. wàllu làmb moom xamee nañ ma xam nañ ma bu baax. dëgg la <laughs> ndeysaan yaakaar naa sëñ Modou Lo mais xam naa <laughs> xam na man xam na xamee na ma ci làmb ji. bilaay dëgg la dégg nga. <laughs> Uh-huh. mbër mu muy bëri gi samay mbokk nag ñi ma koy aaye xamaguma nag dinaa ko bàyyi wala duma ko bàyyi. Uh-huh. ndax ñëpp jóg nañ ne ma da ngay bàyyi làmb ci. ndeysaan xamaguma nag fan laay mujj. Uh-huh. waaye maa ngi nii ci loxo yàlla. ndeysaan waaye li ma la mën a wax daal mooy. Mm-hmm. falu moom. Mm-hmm. sayaj'alallaahu ba'da usrin yusra. liggéey la boo xam ne nii bu la neexee ñu liggéeyaloo ko. Mhm. nga dem sangoo ko garab ya takk am xaalis xaalis moom loolu ci gën a gaaw. secret xaalis. Mhm. waaye nag boo ñëwee damay dem ba fa ma dëkk. Mhm. ba fa may sampi nit ñi. ma samp la foofa. semaine bu jot ñu génn sarax sarax yooyu sarax yooyu tooy la motu sax junni. da ngay fonctionné say mbir du laal suuf. Mhm. waaye am na loo xam ne boo ci faloo dangay ngay follee ko waat. te man bëggu taxawal mbir muy daanu. Mhm. waaw ay ca am na solo bëggu may taxawal ay mbir muy daanu macha allah sëñ bi bu ñu ci euh, ku bëgg a day ñëw ci li nga xamante ne mooy euh, feebaru jalis bi. jalis moom xam naa ne bu ma nee mën naa ko faj lu ñu bari dina leen jaaxal. dina leen jaaxal de <laughs> ndeysaan nit ñi. Mhm. ñaare seen ngëm-ngëm dafa xawoon néew. dëgg la. beneen bi ci topp mooy daa am matière faj yoo xam ne boo ko tuddee sax nit ñi dañuy dar seen gémmiñ. ndeysaan. jalis dama koy faj. dëgg macha allah. maa ngi fii ci parcelle. Mhm. ci lu leer ci lu Sénégal ñëpp xam. dëgg la musuma fee woote leen lu may faj te du wérul ci man. dëgg la parce que ñi ma koy jëflanteel. Mhm. amuñ dara ju ju toll nii ma leen di fenn. dëgg la dee alal la it. Mhm. ak lu mën a doon ci àdduna. ñàkkuñu ko ba tax ñuy wax lu du dëgg. dëgg jalis. am na feebar euh, am na reen yu ñuy wax barkis. waaw reeni berkiis. reenu berkiis. bokkut ak bekki békki waaw. berkiis mhm. mook békki bokkuñu dañoo nuroo waaye ñaari matières yu bokkul la. békki mag ñi daan dem poroxaan ñëpp xàmmee nañ ko soo demee dañ la koy jox boo amee ab góom ni ci nga koy def mhm. sunguf la mhm. reen yooyu buñ ko boolee ak ginaar jox la ko am na lu muy àndal boo jëlis day deñ loolu nag boo ko waxee xam Sénégal ñëpp dinañ jóg taxaw. waaye nag bu yeewoo ñëpp jóg taxaw te xam ne. am na solo allah ñu dalal ko tey moom Serigne Cheikhouna Ndiaye euh, sampub Soxna Jaara ba tey mi ngi fi nga xamante ne mooy parcelle euh, numéro téléphone bi dinañ ko def ci écran bi ku ko bëgg a jore incha boo ko jox sëñ bi bu jógee ci li nga xam ne mooy jalis dañuy ñëw ci li nga xam mooy bayre njaay ndax kenn kuy jaay rek bëgg nga ci bayre tey mënoo jaay ci ba ngoon te du jaraloo boo ñu la wax tey bayre lan nga ñëw. bayre njaay. maa ngi koy liggéey ci secret bi nga gis nii secret bi moom la ñuy wax. war a fax naahu. Mhm. maakaana nax li yéen. day dox ci wàllu yëkkatiku. Mhm. Euh, waaye beneen bi ci topp mooy. Mhm. dañuy wut ay boppi jën bu dee palaas buñ mën a gas la. dañ koy gas. buñ ko gasee. juróom benn fukki boppi jën. ak ñaar. lay àndal. boo ko wutee. maanaam dafa am leen lu ñuy liggéey loo xam ne benn bu ci nekk day dem ci benn bopp jën buñ paree dañ koy ëmb fii. gas ci place bi suul ko. Mhm. wallaahi lazim amut place boo koy liggéey te nit ñi duñ fa ñëw. Mhm. xam nga nit ñi mën nañoo ñëw ci place. la te duñ la amal njariñ. Mhm. nit ñi loolu nañ ci bàyyi xel. mën nañoo ñëw sa place doon mbooloo. ñëw fa di fa di fa jàgg. boo ñaan da ngay ñaan da ñaan maanaam euh, mbooloo mu am njariñ. mu lay jox xaalis. <laughs> man Bayre Njaay bi ma lay liggéeyal. bu dee da ngaa nekk sa kër di fa liggéey. mën naa laa liggéeyal façon Bayre Njaay yu bari laa la. bu dee place la nag mhm. da ngay ges digg bi ma liggéey liggéey bi nga suul ko bu dee ay karo nga yëkkati benn karo ñu dugal ko nga tegaat ko mhm. di doyal mbooloo moom njëriñ ndeysaan incha allah rabbi Bayra Ndiaye boobu am na solo ndax kuy mhm. jaay bëgg ngaa jara sëñ bi bu ñu jógee ci Bayra Ndiaye ñëw ci li nga gis nañu temps yi tamit gaal gi booy yaa ngi dem di tukki problème yaa ngi bari ñu ngi ko ci ndox mi tey boo amoon tey kàddu yoo ciy wax tey lan naa xàmmee nañ ma génnoon naa ci waxoon ci d'accord fan yi ci ginnaaw ñi faatu mbuur wax naa ci émission ne leen am na suur buy bëgg a ñëw suur sangam. yaakaar naa seen bi ko tourné ci émission bi nit ñi xamee nañ mhm, ni leen talaata boobu gaal gu ci départ du gaal ga ci départ la li faatu ci nit kenn xamul luñ toll bari na de semaine bii jàll am na ay nit ñu bari ñu ma woo mhm. seetloo ma ci mbirum ndox mhm. man ma yebbal leen am na ñoo xam dañoo lànk ne duñ dem dañoo dem ci yeneen i sëriñ ñu seetal leen ne leen yoon bi baax bañ demee ñenn ñi dëpp ñenn ñenn ñi dañoo faatu Mm-hmm. seen quatre cent mille yi ñu doon dajale. Mm-hmm. nañ ko téye. dëgg la te woo ma téléphone ku ci mm-hmm. am passeport bul dem ci gaal gi. woo ma téléphone ma teg la ci programme bu baax. macha maanaam nga am nga dem ambassade ñaan visa ñu may la ko. ku yoroti quatre cent mille bul demati ci gaal gi. dëgg la ku ma woo. ci cinq mille francs ci laa lay seetal. wax la sarax boo xam doo ñëw jurut ngay ñëw. bu ma la waxee sarax bi. billaahi boo déposé ay kayit. boo ko amul ma xaaj. allahu akbar loolu mu amul ay ñaan loog ay sangu yi mhm. maanaam fotal sa passeport nga envoyé ma ko WhatsApp dëgg la ma seetal la xool say mbir. Mhm. sàkk loola benn sarax nga dem saraxe ko. Mhm, mhm. loolu. boo ko ko def ci ci ci kàttanu suñu borom. boo demee ambassade da nga am da nga am visa. incha allah. ayca mi ngi noonu nee naa la fi mu toll nii dugg ci gaal gi di kuus jeex na fi ñëw leen seesi ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikhouna Ndiaye samp soxna jaara bu ngeen ñëwee rek incha allahu rabbi bu ngeen ko joxee li ñu ko jox mu seetal leen rek lépp lu ngeen bëgg dina yomb incha allah euh, sëñ bi bu ñu dañuy gis tey ñoo xam dañuy dugg ci Serigne si ñaan lu ba sonn mais dañuy tëx duñ gis dara xam nga euh, loolu li koy sabab mm-hmm. am na ñoo xam ne fi nii dañoo gedd ñaan. dëgg la ñenn ñi dañ leen a nax. Mm-hmm. lekk seen alal. Mm-hmm. ñenn ñi dañuy dugalal nit ab xaalis. mu bloqué seen numéro. am na ñoo xam ne nii sëriñ soo xam ne ñu nanguwuñu nanguwuñu kenn xam fu ñu dëkk. dëgg ñenn ñi. bañ juddoo ba léegi ñu ngi sangu. loolu nag génnoon naa ci wax wax fi ne lam yàkku ni seen kafaroo maanaam bu fekkee maanaam nit ku tëla mhm. ki laa koy sang mu tijjee ko bu dee góor mhm. neuf lañ koy sangee bu dee jigéen mhm. onze mas ngaa dégg loolu mas ngaa dégg xam-xam boobu koo de dafa am matière yu muy àndal yoo xam ne ay takk yu ñuy takk la di ko jaay muy garab guy law wallaay lancé nit ku tëkku nekk ba ma la sangee da ngay ko hmm? te nit bu xasee tën yi pour nga tijju ko mooy gën nekk jafe-jafe dëgg la de jafe-jafe indi dafa bari yu bëree bëri da koy sabab hmm. waxoon naa fi jamono yi rek ni kum dalati. Mhm. boo ñëwee ñëw ma tijji la ba pare nga doog maa fay. Ah, waaye balaa loolu nag dama koy seet. Mhm. ak foo mën na ne ci àdduna boo tëwee. Mhm. woo ma ma wutal la solution. Hmm? incha allahu rabbi. ndeysaan. sëñ bi loolu moom baax na de efficace la de. <laughs> loolu lu wér la ñu ma ci jëflanteel ci ay nit. kenn xamagul nuñ toll. dëgg la wallaahi lancim nit ñi te ñëpp ma am seen solution. waaye nag ñi ma ameel ay borit nañ ma fay. dëgg la maa ngi leen di soññaale. <laughs> nañ fay bori. <laughs> am na ñoo xam ne moom dama leen rusa fayee ko waaye nañ ma fay nag. ah dañ laa war a fay nag. ah <laughs> laa war fay de. nit boo fekkee yàlla dafa dogal nga tëj ba nit tijji la ba say mbir di baax. Uh-huh. da ngay gëstu ki la tijji. la mooy boo gisee sëriñ su bari nu nga man man na man maa mën a jël engagement. Uh-huh. di garanti nit ku tëju. Uh-huh. te loolu dafa am fu ma ko teg. dëgg la nit bu fekkee maanaam amoo ci li ngay def yàqin. mënoo mënoo mënoo mënoo leble ak ñaan. dëgg la parce am na ñoo xam ne nii buñ la xasee jox liñ lay jox dañu naan siiw nga nga jox leen li nga leen war a jox. Mhm. nga dem ñu dem. boo gisee baax na man nag doxewu ma noonu. Mhm, mhm. man nit ñi dama am ci ñoom yërmande. di leen dimbale. nit du fekk nit euh, kóllëre du alal rek. dëgg la jàppante du xaalis rek. dëgg la de man jàppale naa fi nit ba taay. lu ne ci ci àdduna. nit defal na ma ko ci teraangay ñaan. man moo tax am na loo xam ne su ma ko nanguwul rek guréew ma. te liggéey surtout wàllu ñaan. yàlla du ko joxam nay. du ko jox ku soxor. dëgg la du ko joxut du ko jox itam maanaam euh, nit ku nit nit nit ku nit ku sellut. Mm-hmm. ndax yii ma la wax nii. Mm-hmm. il mu daje ci yow nga ma doog cee man a leblante. ñu doog la cee fay. Mm-hmm. nit ku mënta leble lu baax. waroo xaar bisu fayoo ko. te man yooyu yëpp dama koy bàyyi xel. sëñ bi ñëw nag li nga xamante mooy kaaraange. kaaraange. moo war a ëpp doole ci nit. te ñu bari dañ koo sabental. nit ñi moom tijjeeku rek ngay wax. waaye kaaraange. Mhm. man lu néew ñoo may laaj kaaraange. Mhm. kaaraange da cee bokk. Mhm. gis nga kaaraange. nit tabax na ab tabax bam bam sori ko mu xëy màbbu te ñàkk kaaraange moo ko waral nit dawal na oto bu bees xëy def ci safaan te ñàkk kaaraange ubbi na place xëy mu tàkk ñàkk kaaraange moo ko waral kaaraange dañ koy dama koy liggéey ci baraahatun su ma ko bindee mbind ma su noppee xalima yenn koy bindee badaaxatun nga day ànd ak warada secret bi may wax nii secret mag la gone yii di lasaraar xamuñu ko hmm. boo noppee xalima yi da nga koy jënd nga lakk ko boole ko ak li nga bind hmm. nga digg sangu di ci naan billaahi hmm. kaaraange googu féete ko amul ci àdduna dëgg la nit il faut nga wut kaaraange boo ubbee ko léppay ñëw rab day ñëw jinne day ñëw balaay dañuy wàcc yow cat yi dañuy ñëw bu mul kaaraange nag mhm. lu ñëw day dugg ci yow. Mhm. ay ah. mhm. ca am na solo boo amul kaaraange lu ñëw day dugg ci yow ñu dalal ko tey moom Serigne Cheikhouna Ndiaye. samp soxna jaara sëñ bi nag ku ne xam na ne amoon temps ndax euh, nit ñaa ngi lay xaar ñu nag ñoo la tënk wax dëgg yàlla ndax yi euh, dañ laa namu lool te sa waxtaan day am solo euh, ndax boroom xam-xam nga li may faral di wax xam-xam bi sell na wér na te wóor na macha allah te danga ko gëstu ba xam ko sëñ bi duñ dem nag ba ñibbi te waxuñu ci wàllu làmb ndax ku ne xam na ne amba am na combat royal boo xam ne mi ngi si suñu kanam fan yi dox ci diggante Siteu ak ki nga xamante ne mooy roi des arènes Modou Lo noo gisee ñaari xale yi làmb ju nar a tàng jër lay doon. waaw. Ah. beneen bi ci topp mooy. Mm-hmm. wax naa fi ci ñaari émission ne leen. Mm-hmm. loo ma ngeen xamoon mooy takk ay xanjar-xanjar ci yaram bi. dëgg la Modou mii moo ko ëpp mystique. ñu hmm? nekk yaa moom tey mi. bu takkul dara bi. fuuf bokkuñu. allahu Modou Lo. Mm-hmm. li muy jëfandikoo di fi gone. Hmm. toujours damay wax ne am na mbir yu taxaw ci moom di taxawit jay sun toujours boo xoolee mbiram. moom nag bu dëggan image bi image bi bu ko mën naa yëkkati loxoom ne jëysun yi burut ay kaamil di jëysun leneen xam nga jëysun mooy lan jëysun mooy lan moo ñetti téeméer fukk ak ñett hmm. mi ngi mel ni day jàngalu ay limi ñetti téeméeri ñetti téeméeri kaamil ak hmm. fukk ak ñett hmm. wala mooy jàngalu jëysunu leneen leneen wala wala ay yàlla rek waaye lii ma la wax nii su ko déggee dina xam ne li may wax dëgg la man du ma bukk ma sëriñ si di wax ci ay waxi na xasaxan amu koo ko jot amu koo ko jot Siteu fi mu taxaw baax na waaye na yokk gàllaajam lu mën a def ci àdduna na yokk kaaraangeem te gis nga biddiw bu fenk eh, ci nit nañu moytu jëm jooju ci at yooyu te Modou Lo dafa toll ci gudd yooyu koron eh, bii mu yor nii ay waxi neen nii rek yóbbu ko jëlewu ko fa de hmm. lii ma lay wax nii hmm. kenn mënut ta doxal samay wax ndax lépp lu ma wax am naa fu ma koy weer dëgg la Modou hmm. yu ñu toll nii daan ko day xawa a doon luy jafe lool waaye nag Siteu am na euh, am na position boo xamante ni maam ci xibla yi. Mhm. su ko taxawee. Mhm. ak ci yenn waxtu yi. Mhm. ndax ndax ilmu nujum boo ci ñëwee. lamb xam nga day dëpp. boo gisee sëriñ su bari ñemewuñu cee xool. lamb day wëlbatiku. man ngaa jël xibla bi sa biddiw dëpp. victoire bi nga andi woon. maan victoire bañeekuwaat. dëgg la. arbitre bi mën naa soufflé. ci heure boo xam ne nekkul sa heure. boo ko defee maanaam yëf yi wëlbatiku. moo tax làmb boo gisee ñu baree baree bare di ci def ay juum nu cee xool mhm. yii ma la wax nii da koy sabab mhm. waaye Siteu mhm. am na heure boo xam ne bu ko bëree woon am am am am xibla bu mu jël yokk maanaam ak mystigam yàlla ma na ko defal ndam moom Siteu Siteu waaw mais actuellement ni kan moo gën a jekk ci mystique Modou Lo moom bu fekkee dëgg nga bëgg a dégg mystique moo ci gën moo a jekku moo ci a jekku bu combat bi doon suba suba suba bu doon suba suba suba jekk na hmm. moo tax Siteu li ma koy conseillé mooy na góorgóorluwaat ci mystique. Mhm. mystique. Mhm. doo caaxaan. Mhm. ndax euh, gàllaaj dafa bari te wuute. dëgg la am na ñoo xam ne nii. lépp loo xam ne samp nañ ko. pour nit sem bi ko doy jafe. dëgg la dégg nga. Siteu. na defarwaat na defarwaat ndaw la nag loo xam ne lépp mi ngi ci avenir am. tat nag nit kuy dem ca ca la. waaye nag combat bi dafa xaw a ci moom. waaye nag suñu borom moom mën na lu ne. dëgg waaye nag na yokk mystique am. moom Siteu. waaw ah. uh-huh. bu ko yokkee dina baax. Uh-huh. sëñ bi damay faral di dégg ñu ne lii daan mbër mi di ñëw esaat. loolu mën naa nekk ndax xam nga boo ñëwee ci ñiy samp ay jalang. Uh-huh. am na heure buñ fay toog bu mbër mi bëre. ñi yor kurus di wird. bu mbër mi bëre dañuy jog toog ñiy dox ci maanaam xal xam-xam sulman yu dañuy jog toog bu boobaa. ñi nekk ci ci ci ci yeneen réew yi. xam nga mbër yu jógee ci réew mi di dem ci yeneen réew. dëgg dugg Nigeria. da ngay dugg Bénin. Mhm. da dugg euh, fii dëkk bi gine Guinée waaw ngay dem Mali. Mhm. da dem Guinée Bissau. Mhm. réew yu bare bare bare bare da fay samp ay nit. bu lamb ji tàmbalee ba nga dugg ci stade bi. dañuy jóg taxaw moo dee ay jalan yoon samp laak lu mën a doon. dañuy jóg nekk ci. allahu akbar. fo de. du caaxaan moom. <laughs> lamb ku amut gàllaaj. dégg naa ñu naan doole ci la waaye gis nga mën a bëre baax na lool ak yooyu yëpp waaye gis nga gàllaaj. sarax yi nga gis ni donc nit ñi di ko sarax ci làmb xanaa xamoon sarax ak deegu ñaaw sax du koy dindi hmm. maanaam bu te maanaam mudloo mii ma gis nii hmm. maanaam déggloo ko mu muñal moom ci jamono yu ñu toll nii du hmm. yomb làmb ñu nag néew ma day daan cité ndax dinaa ko xool wax leen kii daan ndax man làmb damay génn ne di daan dëgg la <laughs> bokk naa ci koy def <laughs> waaye nag ma daal li ma koy conseil mooy na gën a góorgóorlu bu baax yàlla nag mën na ci kanam moom léppam day dafa nekk ca kanam. ndeysaan mhm. mais sëñ bi nit mën na jekku làmb ñëw ba ci biir stade bi ñu nangu victoire bi. day am waaw. victoire maanaam da ngay ñëw ba ci biir saako yi ñàkk ko. làmb day dëpp làmb moom mat si. gis nga sëriñ su bari ñu surux dugg ci saako bi ta bii ba fii ba bis penc dootuñu génnaat <laughs> dañoo noonu ci ay mat si di ci wax. ndeysaan ak làmb di ci wax mu ñu leen ciy wax. Mhm. Mhm. làmb mën ngaa ñëw nii. bañ wala ne diw mooy daan. nga ñëw ci làmb ji yow ñu daan am na laa am na yoo xam ne nii. Uh-huh. ñaare bu ñuy bu ñu guddi dañ leen di ne leen da ngeen di daanu. da ngeen di daanu semaine bépp mën nañoo gis ne dañuy daan. mais mën dem ba uh-huh. naa ko mu ne làmb xuma nan. Uh-huh. biñ ne suba la làmb ji gis naa laa gis sama sama jël. ndeysaan làmb ci boppam moo dut lu ñuy seeta ci ay wax nii rek. ay jumtuwaay yu ci xam-xam ci lañ koy seet mm-hmm. Mm-hmm. bu ma ci seet nag mbër mu ciy daan mm-hmm. bu ma ko waxee day daan mbër muñ ciy daan dama naan la da ngay daanoo mbër ñëw na fi ba tay indi fi xaalis ma ne ko dañ le daan ndeysaan macha allah mbër ñëw na fi tam yéen mbër yi dee leen fay ah, <laughs> yéen it yéen it dee leen fay bor yéen mbër yi fay bor bi ah. <laughs> tey moom émission fayu bor laay def. tey émission fayu bor la. am na mu bëri yoo xam ne ma xaalis nañu ma ah, ah, fay. de. Ah. mu tudd na. <laughs> bëri nañu fay bor bi kon sëñ bi looloo gën woon ndax bëri moom sama compagnie gi ñoo yem dañoo xaw a doy waa dañuy lépp ta duñu fay mbëri fay leen bor bi nag daan kay maanaam doo leen gisaat xanaa bu ñu amaatee combat. <laughs> bu ñu daanee doo leen gisaat bu ñu amaatee combat ñëwaat. ñëwaat waaw ngay leen fay leen bor bi waaye bor bi moom bor yi moom ah. xaw ngeen fay ko ah. <laughs> ku ci bëgg daan da nga fay bor ndeysaan ay ci am na solo macha allah sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal ndax euh, temps amul yaa ngi si yeneen soxla sax waaye ñu ñoo la tënk rek ngeen waxtaan ak yow ndax sa sa waxtaan dafa am solo ci réew mi ñu jaajëfal la kontaanee la macha allah def ba benn rek tàqoo tàggali ko tàqoo bu lu tàggali ko yéen it maa ngi leen di sant di ñaan ne mhm. mbooleem ñi may topp ci wàllu wàllu wàllu lasaraar atu mhm. xam-xam yi nañ abonné ci sit bi bu ñu demee ci compte tiktok bi mhm. yaakaar naa mooy Dakar. Dakar people ndeysaan. foo boo duggee ci YouTube bi. Mhm. boo fa abonné dina jàll. dëgg nga dem ci Facebook bi noonu. Mhm. ñi may topp ñëpp nañ xam ne maa ngi ci seen bii. ndeysaan maa ngi leen di ñaanal bu baax yal yàlla koyal ko te yëkkati leen nag yéen jërëjëf allahumma amiin jërëjëf ah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne naa Ndiaye ah, sampub Soxna Jaara ñu jaajëfal ko macha allah li ma wax sànq rek daw si leen seesi ko ah, numéro téléphone bi dinañ ko def ci bas de écran incha allah boo ko wér di nga ko jot nee naa la mën a nekk rek dina faju ndax xam bi mu yor wóor na macha allah wér na te sell na te da koo jàng ba xam ko ñu jaajëfal ko kontaanee ko di wax merci beaucoup jërëjëf ndax li may faral di wax rek ñu mel ni dañ leen a war a ñaana ndax nee naa soxlay doomu aadama yi bari na te heure boo ñëwee ci ñoom la fajal la ko wala ñu saafaral la ko macha allah ñëwee dina la seetal euh, li nga xamante ne mooy kaaraange aussi tamit mën na ko jàmbaar la noob boo ñëwee ci moom incha allah la ko defal alum rab bari na ci réew mi incha boo ñëwee ci moom dina la ko saafaraal képp ku bëgg a falu rek incha boo ñëwee feebaru jalis bi nga xamante ne moo temps yi nag moo toj réew mi macha boo ñëwee ci moom rek incha allah dina la ko defaral ñu ñaanal ko jàmm kontaanee ko merci beaucoup sëñ bi jërëjëf kontaan nañ saa su nekk rek Aïssa laa ci àndal moo nekk ci caméra bi ba tey nee naa du ci wéet ayaa la ci àndal moo nekk ci micro bi mu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di jox ñëpp di daje beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf